dëggalante suñu biir rek ndax jamono ji ñu nekk ci am lay wax jëf la te jëfu góorgóorlu ci ak ak jëf voilà waaye dafa fekk boo wootee nit ñi wuy seen faaw nga sant leen gërëm bu ñu leen sant leen gërëm wér

ñëw ñeeg jigéen ñi mag ñeeg kaw ñi ñëpp. tànk yi ngeen ñëwee ba di ko def yàlla sama borom def maam Thierno Ndiaye bi mu jógee Mbacke Kajoor kii Serigne Touba jox ko digal mu ñëw sànq si Darou Mouhty kii dafa toog ab biir suñu borom la toog ko toog ci presque am fa maam Thierno déplacé wu ko ñëw sànq fii si tool nekk ci ak njaboot bi bu ñu xëyee dem si tool dem Darou Mouhty léegi dëkk ba wëlbati suuf moom mu nekk fii ak njaboot bi di fi dund di fi liggéey di yóbbu Sëriñ Tuuba jaaree bépp yi fukki at moom benn yoo xamante ne bii borom daal moo fi bu génnee si góor yi dafa dem daal moo fi xool ñeenti liggéey bu ngoonee mu def ngoonee dañu si wax si góor yi toog maam Thierno Birahim na wax ne leen barab sàngam bu si góor dëkk na woon fukki at ak juróom benn mënul nekk c'est impossible ndax maam Diop bu leen fàttali moom Serigne Touba ba ñuy nekk te booba dara taxawagul sëñ Mor Anta Serigne nekk Serigne Touba daaw ko bàyyi mu toog ci benn fu mu mas a jëm da ko yóbbu te Serigne bi daaw daw nekk ak ñoom ndax boobu la mu mën a def ci moom foofu di ko yóbbu di nekk moom ngir mën ko def ci. ba mu dem ba Thierno xam loola man loola mokkal mu a def ci moom lépp mu def ko ci moom ba noppi wëlbati ko nag boole ko nit ñi Thierno di jàngale Thierno di yar Thierno di tarbiye ba lépp tey macha kenn ku nekk xëcc ko jëmale ko fu la neex. sant yàlla loolu la ñëpp di ñaan yàlla kër kenn koy sant waaye bu ñu demee ko lu toll ci téeméer ñaar téeméer ñetti téeméer juróom junni buntu kër du ubbeeku ca buntu kër yooyu yëpp kenn ku ci nekk xëy na woo ca kër gee sant boo fi gis mu ubbeeku kër boo fi gis mu tëjee ko tey ca xam nga kër bu fi tëjee ko tey ca xam nga ndax Thierno ba muy yor Thierno Serigne Touba ba muy yor Thierno Serigne Touba kese booba ñoom ñaar rek moo tax. mën na leen tere te misaal bi mën ci jox li gën a gàtt bi tubaab bi wootee fii Ndar ba ñu jógee ko ba dellu si wax fii Touba la kenn wax dajale sëriñ seeg seex saak mbokk yaag doom yaag ñëpp cheikh yëpp a nanguloon keroog nasaraan ba cheikh bamba gàntal noon ba gëm borom ba cheikh yëpp a nanguloon keroog nasaraan ba Cheikh Bamba gàntal na ba jëm borom ba lu bàyyi cheikh yi nangu loon na mu doon rakam de mu àndaloon Cheikh Ibrahima Fall moom dinañ ko baa téel ne ko déggee wi nañ la mën a baa tubaab ba natt ko ci téeri gi ba baa muy gën a tëb pour yàlla muur yi martaba ñu daal di koy jiital te nag kii bu ñu ko baa nañ ko sàkk foofu ndax daari martaba nasaraan ba natt ko ci ko sanko fowmu fowmuga daarimi mardoba mbiɗa ɗum ceerno jërëjëf bul jaawale ah bul jaawale mam

अमेरिका की नहीं मैं भाषा लगा जब सब स्वागत है ki ko war a liggéey ku ko liggéey ku ko la keneen ku ko liggéey ku ko la seetaay yi ma am juróom séeréer juróomi tànk ak njabootu Serigne Touba ak seese ak mbokk yi ba ñu gënu si waat toog dafa wax seede naa ko xoolal ñu ko si yëg la bi yoon bi lëndëm la yaa wane woon yoon tey la yoon bi gën a lëndëm wane waat lu yoon mu ñu jël boppam jox seen bopp di sax ña ca des ñëpp topp ci ginnaaw jox seen bopp seen bopp di sax kon nag dañuy xam li fi nekkoon démb ba tey mooy li fi nekk li fi jóg te mooy yàlla boobu su ma amoon du fi mas a jóg moo fi nekk démb moo fi nekk tey te ëllëg moom kese moom nañu bàyyi caaxaan yi dox dox li ngay yëngu-yëngu bu bari bi folklore bu bari bi coow lu bari bi du dara génn ci mbedd di ko di ko dégg kenn ku nekk di ko kii te boo duggee ci biir am neneen noo koy duggee na ko kenn si bopp nit ki bu la soxor taxee tëdd jaaxaan di tuur ndox jàpp ni ki nga tëddal ngay tooyal balaa koy naxee. dëgg la Mbacke. nañu dal te tey ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk boo lambee sa bopp am nga loolu doy sëkk ci sa bopp lu jënd. Hmm, nañu góorgóorlu waat nañu góorgóorlu waat nit ñaa ngi coow te amul benn yoon boo xamante ni bii taxaw nañ def seetlu adduna bi li ciy xew lan la ak lu tax muy xew na sama borom defoon ngir bi nga xamante ni bi dañoo saxoon ci bi comme mooy mooy bu metti ak metti ko metti ko tar mu dëpp leen booleeg suuf dëpp sama borom mi ko defoon ba léegi moo fi nekk du fi jóg

la ñu njëkk a wax mooy ab jullit bu jur sa doom ba mu màgg toll yow yow mi ko jur ak moom mi nga jur xamu leen araf ci li leen seen diine bëgg publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàpp leen ni Ndiaye Pro barab bii di barab bu communication di ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route Belel jàkkaarloog boulangerie Kayndé Fatma woote leen gaaw si bu bëgg liggéey bu tegu fi temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc